dal leen ak jàmm mbokk internet yi si four Buzz Media TV ñu ngi ak yéen nag ci benn kàddu bu jugaat ci diggante kile di Balla Gaye numéro 2 ak kile di Yékini moom Balla Gaye numéro 2 nag dal dina yëkkati fat am mission dal di waxaat ne kile di Yékini mi ngi dégg ne kat dafa nekk ak moom ci ay mbir yu doy doy waar maanaam nee na dafa jug pour dal di ko yàq te moom nee na Balla Gaye dafa itam yu bëree bëri loxo ni génnu ci bi la xibaar nag maa ngi ko jëlee ci Seneweb moom mi nga xamante ne saa yu ne rek day joxe information bu wér kon nag Balla Gaye numéro 2 moom nee na li waral kat ay bari moom nee nañu Yékini mi génnewu ci loxoom fii ci Buzz Media TV nag kon daañu leen toppal bi la information mala lay invité nag nga dal di abonné te bés kolas de notification bi bu dee kat bëgg nga am information bi mu law waaye nag fekk yaa ngi suivre Buzz Media TV doo tàqale ko ak information yu wér te nag lépp ñu jaarale ko ci yoon abonné leen nag te bés kolas de notification bi ngir saa yu ne ngeen di jot ay information fii ci Buzz Media TV la chaîne des peuples jërë ngeen jëf